ba jub na mbokk yi 19h ci Mourchid TV waxtu yi xibaar yi marax gi li ci gën a fës li gën a fës ci biir xibaar yi jafe-jafe dem ci mbirum ñetteelu commanda bu njiitu réew xamante ni F24 ñoom pare nañu ngir ni loolu du fi am ci waxtu wi nga xamante ni euh, commission bu jëm saytu wàllum dialogue bi euh, lu jëm ci ñetteelu mandat boobu sax nga xam ne ku jégi dañu ko daal di dàq naroon na indi jafe-jafe ci yooyu la liggéey SNHLM ñu daal di koy joxañ baaraamu tuuma collectif u bi euh, gis ni nag dañu leen a jël seeni ay parcelles ak seeni ay koppar ñoom nag ñu la ñu bëgg mooy directeur bi daal di leen abal wala sax mu fay leen la nga xam ni euh, loolu la jëloon ca ñoom euh, ngir rek gën a saytu euh, wàllum li nga xam ni moo di habitat waral. ab revue bi nga xamante ni am na jëm ci bile secteur ci wàllum habitat doon na ab itam ñu wax ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg mu di zéro déchet ci réew mi te loolu jëw riñ ji indi na ci ay tontu ci biir xibaar yi lay doon mbokk yi ponk yàngoo ko yaatal yi gannaaw bàkk gi lay doon. ngeen taamu la chaîne des valeurs Mourchid TV di fi taataane xibaar li nga xam ne jëm na ci coowaluk ñetteelu mandat bu njiitu réew mi daanaka sax indi woon na jafe-jafe ci liggéey bi nga xam ne commission bi yor wàllum dialogue national bi ñu ngi ko doon amal ndaxte bu kujje gi ne du ñu nangu njiitu réew bi nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024 loolee majorité présidentielle bi daal nañu koy dàq di xaar nag ndogal li nga xam ne conseil constitutionnel ci wàllu woowee njàngat li ak Mamadou Thiam. ci mandat bu Macky Sall 2024 opposition bi nanguwu ko benn yoon li muy bañ moo di ñu dem ba ci kanamu conseil constitutionnel ngir xam ndax dina bokk am position boobu boobule nag nekk lu ñu lu camp présidentiel bi ginnaaw ba mu ko dàqande la nga xamee ni moom la ñu mënula nangu moo di intégration wu Khalifa Sall ak Karim Wade ci biir jeu politique bi war a jaaree ci conseil constitutionnel jamono joo xam ni ñu ngay lankal ñetteelu candidature bu Macky Sall ci kanamu makkaan googule lu ci mën a am commission politique bu dialogue national bi waxtaanee nañu lii di wàllum révision article L 28 bu code électoral bi ñu ko siife woon di société civile bi révision boobu boobule nak su fekkee ni am na dana tax ba Karim Wade ak Khalifa Sall ginnaaw ba ñu leen gracier ñu mën a jotaat seen éligibilité lu ni mel nag mënuñu ko wax ci Ousmane Sonko ginnaaw ba nga xamee ni camp wu pouvoir bi li mu bëgg moo di moom leader bu Pastef mu nangu daan bi nga xam ni tribunal daan na ko ko laataak muy mën a jëfandikoo révision googule su fekkee ni Karim waad mën na cee jëfandiku ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko mënu koo jëfandikoo waaye nag révision lee doyul ci waa parti sénégal sénégalais li ñu bëgg moo di ñu réviser procès bu doomu Abdoulaye Wade bile te lu ni mel nag duñ ci deltu ginnaaw benn yoon dàquñu sax génn ci jaloog bi bu fekkee ni nangu luñ leen ko ginnaaw nag bëccëg bu xawoon a tàng lool commission politique bu dialogue national bi fas yéene liggéeyaat ci talaata ji moo ne altine àllarba ak aljuma rek la daloon di liggéey waaye nag ginnaaw laaj yu am solo yi nga xam ni sampoon nañu ko ci ndajeb démb bi ña nga xam ni ñoo séq commission googule daal di jël ndogal daal di fas yéene liggéey ci talaata ji ngir mën a indi ay tontu ci laaj yooyule Euh, li nga xamante ni moo jëm ci ñetteelu ko mandat bu njiitu réew mi loolee F24 ñoom nañu ko daal di dàq ginnaaw euh, weer ak léegi ba ñu defee woon seen rassemblement bu mag bi fële ca place de la nation ñi ngi xam ne ni nag fukki fan ak ñeent ci weeru euh, juillet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax nañu amal beneen rassemblement ngir nag bañ njiitu réew mi Macky Sall tekk ñetteelu candidature waaye yemuñu ca itam xeex ngir justice bi nga xam ne gis nañ ni justice kumba am ndey la ak kumba amul ndey dakk ci biir réew mi loole ak yenn uh, ci ay uh, jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom uh, waa F24 pare nañu ngir jàmmaarloo ko nguur gi fi nekk ngir li nga xamante ni moo di ak ak yelleefu askan wi mu daal di leen koy jox jëm ci justice bu équitable waaye tam ñetteelu ko mandat moom jiitu réew mi bañ ko xalaat ci mim réew ñu wax ci leneen jëm ci mémorandum bi nga xam ni ki nga xam ni moo di njiitaluk Pastef wax na ko amal sax ci jamono ji ginnaaw ba mu ko ñi nga xam ne ñoo di patriotes yi daal di koy xamle ci seenu mur Facebook loolee dina doon ab porox ndoolu ci moom maire bu Ziguinchor mu àddu ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne amoon na fi ginnaaw ba ñu ko condamné ci mbirum Adji Sarr waaye tamit violation yi nga xam ne am na ci ak yenn ci ay euh, jafe-jafe nga xamante ni daanaka réew mi dundoon na ko ci weeru début weeru juin bi nga xamante ni moom la ñu nekk lum ci mënte doon dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo suñu yeneen i jotaayu xibaar li nga xam ne moo jëm itam ci condamnation Ousmane Sonko boobee nga xam ne juróon na ay manifestation euh, ci euh, réew mi fële Ziguinchor lu toll ci fanweer ak juróom ci ay liggéeykat daanaka dem nañu chômage technique lu ko waral moo di yàqu-yàqu yi nga xamante ne am na foofee ci seen bërëb bi nga xam ne fa la ñu doon liggéeyee te loolu moo indi gàllankoor gi bu ñu sukkandikoo ci Nathalie mi nga xam ne moo yor seen ay kàddu ñëwaat na ci li nga xamante ni moo jëm ci manifestation yooyu ak jafe-jafe yi nga xamante ni jural na leen ko ñu teelu ko. Ils ont lancé des cocktails Molotov. Il se le restaurant waaw dañoo daal sànni ay cocktail molotov ci biir restaurant bi te xam ngeen ko fii amoon na ay gaz te loolu mën na jur ay jéeya yu jéggi dayo looloo waral li ngeen gis nii boo doon xoolee image xam ngeen ni fii nii fu mu toll nii e dafa daal di changé carrément gis ngeen ko lakk nañu ñaari gaz yi nekkoon ci biir yëpp waaye itam yàq nañu bërëb bi nga xam te ni foofu lañ daan toog waaw fu ñu toll nii danoo jaaxle danoo jaaxle parce que itam faw ñu am temps wu doy ngir ñu mën a tabaxaat bërëb bi comme ni mu waree eh, fu ñu nag ñu ngi xaar ay expert ak i architecte ñu mën a def xayma bi ba xam ñaata la ni dikkee ngir ñu mën ko defaraat waaye daal li wóor ba wóor daal mooy eh, ñàkk nañu lu bëri parce que xam ngeen ko safara moo fi jaar safara dafa jéggi dayoo fu mu jaar rek eh, ngir nga defaraat ko comme ni mu nekkee woon dina difficile lool en tout cas la maison des artistes itam yàq nañ ko ak case yi nekk ci biir itam yëpp dañ koo toj léegi nag bilan bi nga xamante ni war nañ ko def ngir ñu mën a taxawalaat wala tabaxaat bërëb bi xaw ma ko xaw ma ñaata temps la mën a durer waaye daal góob ma ni fii ak ñaari at dinañ mën a tàmbaliwaat suñu liggéey ndax li fi yàqu dafa bari li ma wax léegi sax xayma dong la ab xayma dong laa def waaye daal ngir wax leen exactement ci xayma li fi jotoo yàqu ah dana ma jafe lool te itam dina jafe si ñun trop ngir ñu tàmbalewaat euh, liggéey bi ndax comme ni ngeen ko gisee boo leen xoolee ci biir amatuñu ay bureau amatuñu dara jafe-jafe su ñun ci wàllum koom-koom wàllum xaalis. ça met des gens en difficulté financière. yi amee bés bu ñu jubalee yi di ay xew-xew ci réew mi mu di tabaski ak yeneen jaaykat yi dañuy am njàqare ci li nga xam ni moo di yenn ci ay denrées yi nga xam ne askan wi dañ koy soxla lu ci mel ni soble waaye bu ñu sukkandikoo ci jëw ji yor wàllum njënd ak njaay Abdou Karim Fofana mi ngi wax ni euh, demande bi jëm ci wàllum soble toll na ci trente mille tonnes euh, te cinquante mille tonnes rek ñoo daal di disponible kon nag état bi dina daal di jëlub ndogal euh, nangu li nga xam ne moo jëm ci wàllum importation bi ci lu tolloog ci dix mille tonnes ngir rek ñu mën a fexe askan wi daal di mën a jotandi ci li nga xamante ni moo jëm ci soble bi waaye tamit ak prix yi nga xamante ni wax nañu ko caa def lu mu ci mënti doon dinañ ci ñëwaat. mu gën a yaatoo suñu yeneen i jotaayu xibaar ñu àddu wax ci leneen junjoon naa leen ko sànq mu di secteur u habitat nga xamante ni ab atelier bi ñu doon amal niki tey jii dajale acteurs yi ñu waxtaan ci wàllum cadre de vie ak it li nga xam ne moo jëm ci secteur boobu ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko ci amal comme ni ko njiitu réew mi bëggee jëm ci euh, plan Sénégal émersion bu nu sukkandikoo ci Abdoulaye Seydou saw boobu lay euh, secteur daanaka li nga xam ne loolu lay def jëmale ko ci askan wi liggéey yu mucc ay la te bile atelier doon na approche ñu teg ay perspectives que mën a fexe nan la ñuy def ba gën a jëmmal wàllum cadre de vie ñu teewlu ko ci micro Alioune Seck. leen sant nag parce que euh, waxtu yi mel nii nga xam ne dañuy xayma li ñu liggéey ci 2022 xool li ci li ci li ci ñaaw ñu defaraat ko li ci li ci baax ñu dëggal ko xool it yan jumtukaay la ñu war a mën a am ba ëllëg li nga xam ne président de la république ak premier ministre xaar nañ ko ci ñun ñu mën koo gis ci ak aussi réew mi xaar ko ci ñun ñu mën koo gis ci suñu liggéey. may rafetlu nag teewaayu assemblée nationale assemblée nationale nga xam ne rôle am mooy contrôler li politique publique naka lañ ko doxalee di rafetlu liggéey collaboration bu ci am te loolu laa jàpp ne loolu ba la war a mën a nekk euh, lu nga xam ne député yi nga xam ñun ñëpp lañ fa toogal lépp lu ñu soxla ci ministère bi rafetlu naa li président wax ci samay service ma leen di féliciter ci loolu mooy diligence bi ak réactivité bi parce que loolu mooy mission de service public bu am te maa ngi leen ciy ñaax ñu gën cee taxaw mais aussi féliciter l'Assemblée nationale pour son rôle de contrôle en tout cas man bi ma nekkee ministre de l'urbanisme ba tey tey nga nekk président de commission bi gis naa aussi sa taxawaay même ci liggéeyu commission bi gis naa taxawaay ci as plénière gis naa taxawaay aussi ci réaction yi nga xam ne à chaque fois bu ñu leen bu ñu leen sollicité ma leen ci gërëm di leen sant bu baax a baax may wax ni rek man am naa satisfaction te satisfaction boobu président de la République témoigné na ko premier ministre itamit renouvelé na ko à maintes reprises ci bi nga xam ne collaboration bu ñu nekkee ñu des ba tey ci ndaje moomu ndax moom moomu sax àdduna ci li nga xam ne moo di bëgg-bëggu état mu di jëm ci wàllum zéro bidonville ak zéro déchet nga xam ne nag Sénégal. daanaka am na ci résultat yu mucc ayib ci ay kàddoom muy xamle ni année 2023 bi liggéey nañ ci liggéey bu am euh, solo waaye tamit ay perspective dinañu ko daal di teg ngir ñu xool rek ana nan la ñuy def fii ak 2023 li nga xam ne moo jëm ci wàllum zéro déchet yooyu Sénégal daal di muy jàll ci ginnaawam ñu daal di ciy def ay euh, exploit yu mucc ayib ñu teelu ko ba tey ci micro Alioune Seck ci ñaari programme yi nga xam ni président moom ci la ñu tënk ñaari programme yi gën a mag te mu tënk ministère bi yëpp muy programme zéro bidonville euh, mu mu am mu am déclinaison bu mag bu ñuy wax ci biir zéro bidonville programme bu ñuy wax cent mille logements cent mille logements nag bu ñu ko waxee chaque fois gars yi dañuy foog ne ci benn at war nga mën a def cent mille logements mënut a nekk président dafa fekk ci at bu nekk fii ci Sénégal cinq mille unités d'habitation lañ na def cinq mille unités d'habitation mooy terrain yi ñuy joxe ak kër yi bu ñu xaymaa li HLM doon def li SICAP doon def ak promoteur privé yi ñu doon def lépp lépp lépp 5000 la boo ci boolee terrain yi président bëgg nañ yóbbu ko ci benn at yóbbu ko ci 20000 beneen bi mooy Sénégal zéro déchet boobu tamit am nañ ci satisfaction loolu euh, président jël na UCG transformé ko en société nationale may remercier aussi assemblée nationale parce que bi ñu indee loi buy transformé UCG en société nationale à l'unanimité la ko wote loolu itam muy wane rek am na secteurs yu nga xam ne de consensus national fu dialogue war a amee ci assemblée nationale am na ko ci société yenn sociétés yi ci yenn projet de loi yi ci yenn proposition de loi ñëpp ànd ci ci projet de loi bi nga xam ne président Macky Sall moo ko yóbbu assemblée nationale war ko transformer sona UCG en SONAGED boobu itam gis ngeen foofu unanimité moom foofu am na lu bëri lu fay lu fay dox ñu àddu wax ci leneen jëm ci nappkat yi nga xamante ni ñoom marin yi doon ñu def seen janoog taskatu xibaar ñaawlu condition yu métti yi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee ak salaire yi nga xam ni moom lañ leen di fay te mu doon salaire yoo xam ni daanaka baaxul loole waral ñoom nag ñu ne pare nañu ngir lépp xeex ngir seen ak ak seen yelef ndax gis nañu kat ni anam yi nga xam ni noonu la ñuy liggéeyee eh, mu di condition yi daanaka baaxul ci ñoom te lañ cay am dafay daal di néew loolu te ba tax na ñuy sàkku ci suñu autorité itam ñu daal di ci def ay jéego Yoro moo yor seen i kàddu ci micro Cheikh Omar Tall débarquement yi mat na cinq cent mille juróomi téeméeri junniy débarquement ci ay tonnes la ñuy débarqué fii mais loolu yëpp dañuy wax ne nappkat bi ciy sonn gisu ci boppam nappkat bi amul heure amul heure maanaam boo ko xaymaa li muy toog ci journée bi yëpp du ma sax quatre heures de temps vingt heures yëpp da koy liggéey traitement ba baaxul seen néeg yi baaxul affaire esclavage dëgg mën nañ ko tuddee loolu moo fa nekk parce que ka ca kaw di tubaab bi walla commandant bi li ko neex moo fay am boo mënulee mu débarqué la léegi te dara du ci dikk traitement yooyu moom la nappkat yi di jànkoonteel moo tax bëggatuñu sax dem géej ñu tegal leen ci nag waaw même bu loolu doon am sax te ñu lay fay lu ko jar convention bii ñuy fayee 1976 la woon 1976 ak léegi ñaata at la dara changé wu ci salaire de base bi ñu ne soixante quatorze mille francs la. moo tax récemment ak unité bii ñu def nii moo ñu permettre ñu bloquer gaal yi ne woon Côte d'Ivoire yëpp ba Seychelles. ñu des ba tey ci ndaje moomu Ali Aïda mi nga xamante ni itam bokk na ci boobule kuréel addu ci li nga xam ne moom la Sénégal nara dëkkmal mu di wàllum exploitation pétrole ak gaz loolu dafa laaj ay formation jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di mareyeur yi euh, ginnaaw nag ñoom xaaruñu état bu Sénégal fas yéene nañu lëkkaloog yenn ci ay euh, école de formation ngir ñu fexe tàggat mareyeur yi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu boobee ngir rek ñu ca yeggee. ñu mën a xam ana nan la ñuy doxalee ay kàddoom ci micro Cheikh Omar Tall gis nañu Sénégal li fi gën a manqué ci mooy formation des jeunes avec l'avènement du pétrole et du gaz qui est apparu en mer bien sûr comme l'a dit mon secrétaire général li war ci dëgg mooy xam nañ ne marins yi ñoo fa war a njëkkee te dañoo manqué formation offshore parce que dafa nekk benn formation bu particulière syndicat toogul di xaar kenn ñu xam ne ñun ñii ñii suñuy mbokk lañu suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy rakk lañu moo tax ñu jóg initier loolu nekkat du ñu xaar du ñu xaar état du ñu xaar keneen dañuy jóg ñun defar ween programme de formation pour nous les jeunes waxtaan ceeg école de formation maritime waxtaan ceeg anam waxtaan ceeg centre yi nga xamante ni ñoom ñooy def formation bi ñëpp bi ñu waxtaaneek ñoom ñu d'accord ak ñun xam ne idée bu rafet la ñu njëkk nag ne les pêcheurs les marins pêcheurs industriels ñoom ñoo gën a affecté ci li l'avènement du pétrole loolu liñ ci jublu du dégarnir mali milieu pêche déedéet waaye dañoo bëgg ay marin de qualité te gis nañ ne ñooñu suñu leen njëkkee ci terrain bi ñeneen ñu ñëw ñooñu dina leen encadrer ñu dem ci Thiès juñu naa leen ko ci ndorteel yi jëm ci euh, collectif bi nekkee foofee nga xam ni euh, dañu joxañ baaraamu tuuma SNHLM mu wax ni daal euh, jafe-jafe yi nga xam ni ñu ngi koy jànkoonteel lu jik njaag te moom mooy njaag ginnaaw seenu parcelles yi nga xam ni dañu ko daal di jëndoon fay ba pare ñu leen di wax nag ay wax yoo xam ni dégguñu ko ñu naan xaalis bi dañ ko jël ak parcelles yeeg loolee waral ñoom ñu daal di yuuxu wallu di sàkku nag ci état bu Sénégal mu àddu ci wàllu woowee lu ko mooy yuuxu dina jub fu ñu ko ko foogewul loolee di kàddu góor uh, Gora Ngom ñu teewlu ko. directeur SN HLM yi ak chef d'agence su SN HLM yi problème yi ñu nekkee ñoom ñoo ñu ko teg kon nañ xoolaat seen bopp parce que mënuñoo dem ci société état nekk ay góor góorgóorlu di taqale di jiwoo ko daanu ñu fay parcelle ba pare ñaan ñu xaalis dañ ko sàcc fayaat leen ñu fayaat ñu ni amuñu amuñu terrain loolu dëgg du yoon waaw nañ lijjanti lii directeur général bi fi nekk di Mamadou Diagne Sy Mbengue dem nañ ci moom le euh, le 25 février. le 25 février 2020 dem nañ ci moom ñu toog mu toog waa ASLEM toog mu xameel nañu képp koo xamante ni am nga dossier ASLEM dinaa ko lijjanti. depuis boobu ba léegi ba ko Mamadou Diagne si mbéeg ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi fay seen CA yore seen i preuve yaakaar naa gis ngeen ko luy niroog parcelle jotuñu ko. am na ci ñoo xamante ni ñu ngi fay CBAO ñoo yëg seen i rosi luy niroog parcel jotuñu ko am na ci ñoo xamante ni. ay kayit lañ leen jox jox leen ci toolu jàmbur loolu dëgg di yoon. ñun mënuñoo à chaque fois heure bu ñu toogee ak Mamadou Diagne Sy ñu wax du ko respecté en même temps li ñu gën a métti bërki démb mu génn fii ci benn benn benn benn télé benn rajo di ñu xamal ni ñun ñi mboolem koo xam ne am na preuve SN HLM woo na la ba jox la sa parcelle ñiy yuuxu mooy ñi nga xam ne am ñu preuve te lool loolu amul. parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci mbooloo mi fay nañ seen seen seer luy niroog terrain gis ñu ko am na ñoo xam ne CBAO lañ fay luy niroog terrain gis ñu ko am na ñoo xam deux fois lañ fay même ñi ñu jot a jox kayit sax ci ay toolu jàmbur lañ leen jox ak ay miiru jàmbur loolu mooy lan loolu mooy lan te SN HLM képp ku ko wóolu ba dem fa da bëgg lu leer yegsi nañu ci euh, pàcc bu mujj ci xibaar yi mooy xibaar yi bitim réew yi nga xam ne euh, jihadiste yi di gën a jege euh, fi nga xam ne moo di Burkina Faso waral ñu ci bëre dañuy daal di wut fa ñu làqatu dinañu wax itam ci xeex jëm ci wàllum immigration clandestine waral ba France daal di jébbal ñaar fukk ak juróom benn million d'euros ñii di waa Tunisie tu xayra fal xibaar bi ci réew yi dañ koy dooree ci réewum Côte d'Ivoire foofee nga xamante ni ay way daw làqu ñoo ngi leen fay nemmeeku te ñu jugee ci réewum Burkina Faso yooyu lee daw sax ñoom li leen tax a daw mooy ay menaces armées terroristes yi nga xam si ni dafa daal di jur ñàkk jàmm ak ñàkk a dal ci seeni réew funtoon ni nag ci xayma seen lim mi ngi tolloog 272 ci ay way daw làqu ba tax na sax kilifay réew ma ñoom ñu ngi wéy di wàññi limub yooyu lee daw làqu ngir mën leen dalal waaye itam au commissariat bu mbootaay xeet bi États-Unis ñoom itam desuñu ci ginnaaw ba tax na sax ñu ngi tabax ay bërëb yu bees yi nga xam si ni dana fa mën a dalal yooyu la way daw làqu ñu wutali réewum Tunisie foofee nga xamante ni réewum France daf leen dig lu jege ñaar fukk ak juróom benn million euro ngir ñu mën a indi ab saafara ci mbirum immigration bi ginnaaw bu nu seetloo ni lii di immigration maanaam mbëkk ma ma ngi fay gën a yokku rawatina ci waaxi dendu Europe bi looloo waral jëwriñ ji yor wàllu biir réew bu réewum France bii di Gérard Darmanin ba muy amal ab tukkib nemmeekom ci réewum Tunisie dem ba ci bésu altine bi si la daal di porox ndoolu daal di xam la ni réewum France dana jagleel réewum Tunisie lu ak juróom benn million ci kopparu euro ngir ñu mën leen ko jàppale ci ay matuwaay bu ko defee ñu gën a mën a taral surveillance bi jëmale ko ci migrants yi nu jeexalee xibaar bi ti réew ci réewum France foofee nga xamante ni buuru araab Saoudite moom mi nga fa amal ab tukkub nemmeeku li ni mel nag doon li wane diggante bu ratax bu am jamono ji diggante riyaat ak Paris ca boobule tukkub nemmeeku sax dem ba ci bésu altine bi daal dinañ fa taxawal ab forum d'investissement franco-saoudien loolee nag doon ab plateforme boo xamante ni day gën a dëgëral diggante ñaari réew yi rawatina ci wàllum koom-koom mu tombeek jamono woo xamante ni réewu Arabie Saoudite moom dafa gën a ubbeeku ci wàllum investissement millions jëmale ko ci yeneen réew yi lii moo fi rusandi woon ci xibaar yi biti réew. su xayra faal la ci yooyu xibaar yi bitim réew loolee fi ruusoon ci xibaar ci Mourchid TV moom h Mamadou Thiam teew fi xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20 h ma teew fii seen émission Actu Plus may loolu mbokk yi yàlla mi borom jàmm ku mu jàmmal mu am jàmm yal na ko tuur ci askanu Sénégal ca ngeen ci dàll bi.